الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برم مكة مدينة تسمى مشهد اسمه سلام سيرام فال يدون لام فال مدينة برم دنيا ورسالة أرش غردك باي لالا فال دنيا بابا نجت نمتوك سين كدم سيطان باي لام سيلا بسم الله أحمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إنما سبيل ولا تجادلوا الله min kulli karimin akramu man ammoo xaadan loo takaramu aslim lahu kulla kaan imaani wala asim ihsaani rahmaani waajiu bi zuhri bila kufaani tukfa isabuhum man niraani واجه بشكر بلا كفران تكفى إسابهم مع النيران إلى سوى قلبي ينتهي رام مسنني ربي أنسات اللهب لم تنهي نار ولا هرم ولا سقاوة ولو هم ريخ ورام lam damhuni naarun wala haarun wala saqaawatan walahu umri xawala saqaawatun walahu umri xawala xuttu lahu kulliyati bitaaham wasannani anil hida wasaaham radda li xeeri saati saati naarayni وجملة الأهداء والحارين رد لخير ساتي النارين وجملة الأهداء والحارين آياته كفني سقاء وأهله قادت ليرتقاء إلى الزواء دري ما مالا كل من خلق أو يخلق جاءني الأمن نفع لخير النار والأبواب من قابلي جنة والثواب وهب لي من لدنك يا أكرم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin Baye Lamp si la Maxtaar jërëjëf ci xaddi see rafal boobu noonu kon tey nag incha allah rabi maam seen lamp dañuy dugal rek sëriñ sëriñ Salih sëriñ Salih Thiam sëriñ Salih Thiam tey moo la suñu dugal mu tànn ki maam Cheikh Ibra Fall làmp abel muridina góor dëgg bàyyi lalla faal borom njëriñ faal ak ngokk donc ni ñëpp faal ne kéeméer dëgg ni daan faal ak kéeméer faal sur loolu faal ak kéeméer daan faal ak kéeméer salaamaaleykum alo salaamaaleykum. ah. salaamaaleykum. maa ngi lay si. jërëjëf jaar nan la waay. man la Ibrahima Sène. noo tudd fooy wootee. maa ngi wootee fii Sodabe. tur bi naka la. Ibrahima Sène. Ibrahima Sène. waaw. <laughs> kii mooy sama téere. maa ngi lay ziar bu baax. Ibrahima Sène sama téere ziar naa la baax baax Sène an faa demal suuf kañ bi neex wi ñoo ngi lay ziar bu baax. jërëjëf seen. di am mbégte bu baax ci ñooñu lay invité. jërëjëf seen jërëjëf seen. di leen ñaanal suñu borom yàlla yokk seen xéewal wéral seen i cër. jërëjëf seen. di barke sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima. amiin seen amiin amiin amiin. nee na maa ngi di ziar bu baax a baax. jërëjëf seen jërëjëf seen. di ziar di am mbégte bu li am mbégte bu baax. jërëjëf seen jërëjëf. li nga xam ne moom moom guddi guddi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp. billaahi. nga xam ne tey ku bëgg sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima. Mhm, mhm. am mbégte bu baax a baax a baax. jërëjëf seen jërëjëf. dina ñaanal nag yow émission bi yàlla na ci yàlla def barke. amiin yaa rabbal aalamiin. ñoo ngi lay jaar baax ma ci Jóoba. jërëjëf seen. madame Sène Fadine jërëjëf Fatim jërëjëf Ibrahim. di leen ñaanal yéen ñëpp Fatou Seye Touba. amiin seen amiin jërëjëf. jërë ngeen jëf jërëjëf. jërëjëf sen. jërëjëf seen. Euh, ki ma Ibrahima seen Sofa Bel tey këram fa laa añee macha allah soxna ma invité tey toog ma lu neex suba kànja gi fa suba kànja bu neex allah këram waaw ma koy ba di ko ba nuyu Fatim seen Moustapha seen waaw kon tey Serigne Saliou Thiam. am ne mu te am allah sama xaalis xëy ndax tey émission bi na kaa jagleel génn góor di moom Cheikh Ram Fall waaw du góor dëgg bàyyi laal Fall li hmm. nga xam est-ce que mën nga noo wax kan mooy moom Cheikh Ram Fall est-ce que mën na noo xam tamit dundam ndax am na am na lu mu taalif bàyyi fi digganteem ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul noonu la demee woon ak ban jàngat la ci taalibe yi war a am ci mom seeram fàll am kon bu ko defee suñu sàllu ci am aduna ngoog sakabaga ngok ñaga ngok ñaxirata ngoog ñëpp a ngoog bismillah allo salaamaaleykum alaykum wa rahmatullah jëriñ jar nan la ñu ngi lay ziar bu baax a baax tur bi fay wootee eh, maa ngi wote allo maa ngi wootee Tawfekh. Tawfekh waaye fan tur bi naka la. Fapal rek ci wetu si ñoom ñoom yaay sëñ bi ak sëñ Salif moom Serigne Sadio. soxna Aïssatou Salif asalaam. Mhm. man la soxna Aïssatou Salif asalaam. soxna Aïssatou ziar nan la waay. loolu delloo ziar boobu ñu def moom ziaram. waaw di def témoignage ñu yor si sa doom yi incha allah. jërëjëf waay waaye boo interrompu tuuti wala nga déplacé fu nga ne. waaw ñu nekk ñu am. Mhm. te ñu bëgg sëñ Bamba. war Cheikh Ibrahima Fall. wala mhm, mhm. ñu gisee ñuy def ci ñoom. ci ñoom ñu koy gis benn. ñun ñii ñu ngi xasee ñu ñu naa ñoom seen seen ñu ko doon wax seen bàmm xam di jot. loolu leen di ñaanal rek yaay di ñaanal doom ñu leen di ñaanal yaay di ñaanal. man dama la toog ci ñoom ñii macha allah ay ñu xam ne li ñu naan hors série hors série bi macha allah. képp kuy teewlu émission bi rek damaa bëgg rek ñëpp ñaanal leen. waaw koy sëriñ bi kooku dem na ñu ko ñam duggaat rek te bu duggaatee nu wàññi teleem bi. allahu akbar. amiin yaa rabbal aalamiin. ak jëriñam sëñ Saliou Mbacke Thiam. Hmm. ak soxna maam jaar ca Italie. Hmm. ak mboolem famille bi rek kenn waaw. jërëjëf soxna Saliou. soxna Aïcha Saliou Thiam.

ndax moom rafa ma wax man man Ibrahima rek seen bàmba mhm. dañ koy ñëwoon rek nit ñi jàpp ni nun bañ fee ñëwoon di nit nit lu waaye ñu fi jëfi nit mhm. te daa am ku ne xam mhm. nit la ne xam waaye Ibra Fall daa jéggi nit ndax jëfu fi jëfi nit allahu akbar ndax lu tax askam wi mu bokk ay buur lang xam nga gogg ak joggoral Ibra moom da cee waroon a toog waaye lépp da koo fa lu ñëpp bëgg la Ibra amoon dàq ko ngir borom Tuubaa ngir bëgg teel bëgg ndax Ibra moom mii ki nga xamante ni mooy ma di Ahmadu Roqaya ak soxna Seynabu Njaay ñaari dëkk yu ñu kenn musu leen a moom nga xamante ni moom Ibra ci saayir dafa waroon a toog fii ñuy wax nguur nguur ci moom mhm. mu dàq ko ngir borom Tuubaa ngir soxlawul loolu ndax li muy gis ci borom Tuubaa moo gën a yaatu ko nguur moom ndax moo gën a yaatu ndax nguur ci suñu jamono ji waxtu wi may waxee yow nguur day àgg suuf mhm. lu dul nguuru borom tubaa day laal suuf mhm. lu dul nguuru borom tubaa goo xam ne borom Tuubaa moo ko samp muy nguur day daal suuf mhm. kum ci doon ba la ko falee tey bis dina ñëw ñu folli la moo tax lool la gisoon mu ne comme man nag lii bis dañ may folli te man Ibra Fall képp ko aju ci borom Tuubaa liggéeyal ko noppi ngaa fale ko naa jàpp borom Tuubaa mi dëgg ndax moom mooy dëgg ndax dina ihdina siraatal mustaqim mhm. yoon woowee ki ci tegu mooy Ibra Fall mhm. moo tax mu ne la mbooleem lu alquran wax man Ibra Fall jëf naa ko mbooleem lu alquran wax baat bu mu ci doon boo génne man la Ibra Fall defal na ko borom Tuubaa ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekkoo ci gaa ñu lay wooye ay sahaaba kenn ku ci nekk gis nga ñu daan jëflante ak moom da daan toog ci kaw ñuy toog ci kaw muy wax ñuy tontu Ibra Fall bu ñëwee ci kër borom Tuubaa dani loolu moom ku ko te lu nekk ci mënoon a fekk ndax kenn taxawutoon ci ginnaawam ci zahir moom képp la moo tax ngay dégg ba mi lay wax naan la mës nay xibaar ak jébbaloom mhm. bay wax ni yàlla mi ko moom problème doogu moo nekk foofu bay wax ni yàlla mi ko moom moo ne ko bamba moo la moom mu ñëw fekk ñu toll ak 39 personnes moom mu nekk quarantième bi ci saaxir lu ñuy nettali loolu moom moo nekk jëmmi juróom ñeent fukk personnes muy 40 personnes waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatulah a ngi ziar a ngi ziar jëriñ la waaw ñu ngi ziar baax na. soo tudd fooy wootee. waaw maa ngi wootee Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh tur bi naka la. ah Abdou Sarr. Abdou Sarr Tivaouane ba Abdou Sarr nan waay Sarr. waaw ñu ngi ziar baax na. Ah, sëñ Lamp si laa ngoog. allo salaamaaleykum. allo sëñ Ba. maa ngi si ab góor yi sax. ak góor yi ziar baa ngi ziar baax kay. maa ngi am jàmm. waaw am nañ mbégte bu baax kay ah yàlla sëñ bi gën a yokk baat bi gën a yokk. ndeysaan. waaw ñu lay dégg ñu lay dégg bu soobee soobee soobee. Euh, mbekk borom Tuubaa. ñu gën laa dégg bu soobee saa suñu wax. mbekk borom Tuubaa. waaw ci barke Sëñ Tuubaa. amiin amiin. waaw wax dëgg yàlla am na laabu lool laabu ji ma laabu moom yàlla na Sëñ Tuubaa soobee. Mm-hmm. ñoo ngi ñaan Sëñ Tuubaa foo foo la bokkul nag. amiin amiin mbekk Sëñ Tuubaa amiin amiin. waaw waaw waaw maa ngi ñaan Sëñ Tuubaa foo la bokkul bu baax a baax. ndeysaan sama xol sedd na lool ndeysaan ci taxawaay bi. waaw ñëpp daal mbokk daal bu nekk bépp bu jaar ñëpp daal ñu kenn. waaw sax ñun moo ñëpp rek. waaw waaw waa daal ñëpp a ngi jaar ñëpp a ngi jaar ñëpp a ngi jaar. ndeysaan ñëpp ndeysaan sama xol seet na. waaw Udah rek maa ngi ko àgg baaw maa ngi ko àgg baaw Udah maa ngi ko wax démb. ah waaw ndeysaan. waaw dem maa ngi ko wax baaw yëpp. waaw ndeysaan jërëjëf. waaw waaw waaw mais am nañu mbokk kontaan nañu ñu ngi kontaan nañu kontaan nañu baax a baax. waaw ndeysaan sama xol seet na lool. waaw ñu ngi lay bàyyi sëñ bi rek. waaw ndeysaan si waaw jërëjëf waay ñoom ñoom ñoo bokk daayira. waaw ñoom programme bi maa leen di jàngal. ñu ñàkk moom du ko. waaw ñu ñàkk moom du ko ñoom. dégg nga ñàkk moom <laughs> ñëpp. waaw si saa yu fa toll baax na lool. wasalaam bisimilah. amul roqee. macha allah kon. Mhm. mu mel ni kon am na solo lool. Mhm. waaye ba mënoon a téye service bi tuuti rek. ok Ibrahima ma ne ñaan nga tëj ligne bi kon. <laughs> waaw daa mel ni lii. te tëj tër bi kon ba ci kanam kanam nga doog ubbi serveur bi. waaw tuuti rek bu ko defee 15 bi inchallah comme sëriñ bi moom dafay nekk dafay jaar rek mhm. bis mën naa ñëw nga laaj ñu ne xamuñu ci dara kon mbir mi noonu lay demee <laughs> moo tax ñuy ñaan sëriñ bi mhm. fépp fu nu toog mhm. te fas yéene koo yëkkati muy jëmmam ji ci wax moo xam ci mbindam bi lu mu ci doon mm-hmm. yàlla na ci jiital bayit bi may bëgg a wax mm-hmm. muy mbooleem li nekk suñu xol mm-hmm. tey nax-naxi wala boog ñu war a wax loo xamante ni nit ñi duñ ko mën a dégg wala du duñu mën a comprendre te ni ñu ko bëgg a waxee nay ñaan sëriñ bi dàqal ñu loola kon mu mel ni fi ñu tolloon ci maam Sidi Fall Ibrahima ñi ngi rafetluwaat bu baax ñi nga xamante ne ñoo doon euh, topp jotaay bi ndax am na solo ndax mbir ndax mbir mi boo ko dee topp mhm. ci la njëriñ li nekk mhm. ndax li naan lu kenn xamut mhm. ku ne nga koy dàkkee kon nag yàlla borom Tuubaa mottali leen mboolem seenu kaddu ngeen fi jotal ñoo ngi nuyu suñu wajur woowu soxna Aysatu Saalihu Salaam mooy sunu nday ndax moom la ñu sëriñ bi booleel ci liggéey Cheikh naa seex Saalihu bi di euh, waa Nuuru Daari ne soppe sëriñ Saalihu Tuubaa ci kaw ñu leen di nuyu mel ni sëriñ Saalihu Fall moom sëriñ Saalihu moom la borom Tuubaa dogal mu nekk suñu jëwriñ ànd kook suñu Baye Mouhamadou Mamoun Fall moom mi mooy jëwriñu soxna yi kon maam Cheikh li tax ñu war koo topp ndigal li ci njëkk mooy boroom tubaa moo ni ku bëggatee accès ci man jaaral ma ci bunt bii di Ibra Fall ndax mooy sa bunt daan ni su ma doon dëkka ku góorgóorlu tegu ci yoon wi waa agsi balaa nga ne ma borom Tuubaa hey faaw nga ne Ibra Fall ba Ibra Fall ne la ñëw ne ma pëkk-pëkk kii agsi ci man de jaar kii agsi ci yaw jaar na ci man ndax mooy bunt bi ahlu sama fu mu ci doon faaw nga jaar ci Ibra Faal ngir mën a agsi ci borom Tuubaa la ilaha kon kooku do waroon borom Tuubaa tapp ko mu doon ku ndaw mhm. ndax Ibra Faal ni ma la ko waxee woon sànq bu doon bunt buur lay wër kon waxtu wii may waxee yow ku santul Faal du toog ci réew billahi ku santul faal du toog ci réew mi waaye daa jël mboolem koo xamante ni faal nga sant mu ne la kaay ma jox la lu gën nguur gi nga xamante ne ñu ngi doon wax ay ndijaayam ak i baayam ñoom ñëpp laa la kenn ku ci nekk dalaa ñëw sukk loola ram loola ngir gaay raas yi kii texe jii nga xamante ni mooy nguuru fii ba fële nguur gu dul jeex mooy lii Ibra Fall andil ñu te nguur googi jarul ñu koy tàmbali ci jamono Ibra Fall ñun ñi dong ci nguur gi ci la ñuy dox ndax nii may waxee yow nun nii ku ñu gis bëgg ñoo teral nii may waxee yow ku ñu gis yaakaar nu yaakaar nu yaakaar nu te lenn képp la nag muy Ibra Fall lii mu ñu defal dangay dégg mu ne la keroog bi sëriñ ba borom Tuubaa ci saayir dogal kon nag man Ibra li ñuy wax bay yey mbuss mhm. kon kérok dana len dal dal ni li borom Tuubaa doxalon digganteem ak l'islam mhm. dal ni fi la bayiko ko ci Mbàkke bawal gi l'islam du joy yëkkat ba génn gaday ci sowu jant fépp ni Cheikh mhm. Bamba dal di ñaan ci barkeb jili na yalla may safihu kulli jili neena fi la bayiko ko jaar na fi Ndar jaar fi dakaru jaar ci yoon yoonu geejgi waye neena mang ko fekk ci dekk bi ñuy wax mayomba Mm. moom jëmmi lislaam ak alxuraan kenn ku ci nekk mu ngi toog ci ruq ndax nit leen doon def fii ci àddina nga xamante ne ñii dañ leen doon taaxuraanee ñii di leen def nangam ak nangam mm-hmm. nga xamante bu sëriñ bi jëliwutoon boobu jamono lii ñuy wax lislaam ak alxuraan waxtu wi téem lu ñuy dunde mm-hmm. lu ñuy dunde kon sëriñ bi lawlaa nafam waraa maa bittu fi dunya laylatul waahida dañ koy mën a dégg ci wax jooji dogon ko nag jëriñ min dee fi benn guddi duma ko fi def kon du ko ciy déggee mm. ndax njëriñal alquran saa borom moo wax ni dama leen a wàccal alquran mu ngir mu doon seenu koom doon seenum njëriñ inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnahu fii laylatil qadri muy weer yu ñu génn mhm. kon loolee la sëriñ la borom tubaa ci boppam dem jëlil ñu ko fam ko dabee muy dëkk boobu ñuy wax gabog nee na fa la ko dabee nee na maa ngi leen fekk ñu mel ni doom joo xamante ni ndaa nammum ndayam nammum soow gëj a gis ndayam te soxlam soow nee na noonu la fekk lii ñuy wax lislaam al alquran ñu def noonu yi nin na mee sa day kër ban ma gisee la lanu waxante xam nga lu mu wax kooku may jàmbaar aji màgg ji borom tubaa nee na lii ñuy wax alquran lii ñuy wax lislaam dan ni fii nga ñu fekk buntu képp lu doon wut ngir mën a tegu ci yoon wi ndax lii ñuy wax taaxuraan lii ñuy wax mbooleem li ñuy wax xeetu yàqu yi mhm. aj nañ ko ci suñu jëmm yi alxuraan lan daan wutee jabar mhm. soxna bu njëkkoon ku mësaan a mokkal alxuraan ñu may la soxna sëriñ bee ko fi jëlee moom moom nga doon wax sànq ne moom moo tax mu jël moom bi ñu waxantee ñoom ca ca dëkk ba bi ñëwee ci ku baax ki ku baax ki dañ leen mbooleem lu ngeen ci aj aj leen ma ko man man dinaa leen teeru dinaa leen teral la ilaha illallah diine lislaam ku ko naratee laaj sama kaw la jaadool ak si si yéen alquran mii ku ci nara naratee def dara faaw nga ne borom tubaa deena bu yàgg door ak si sa jëmm ji kooku moom mën a jaayante koo nag la Ibra Fall ne kaay doo ma gën a gore lu tax mbooleem ñi nga xamante ñoo aju ceew nga def ma may sa bunt man dinaa fexe ba ku a narate narate agsi sa jëmm man dina jaar ci man Ibra Fall dina ma def néew ba noppi door a agsi ci yow borom Tuubaa kon bëgg gi ma doon wax léegi jëmmi bëgg gi day agsi ci biir loolu ndax dama ni bëgg ak ka nga bëgg mooy tax boo leen di boole ya ñaar da ngeen doon benn ka <laughs> ak ka nga bëgg mooy moo mooy dem ba mujj yéen ñaar ngeen doon benn. loo fi gis ci àddina. Mm. lenn na koy doxal. Mm-hmm. muy bëgg. mi ngi nii waa jaa ngi. waaw ma maa Ibra Fall. waa jaa ngi. Cheikh Ibrahima. la ilaha illallah. Ibrahima Fall. la ilaha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 salaam ngay Babacar Sadikh rafiqu Ahmada Cheikh Ibrahima Fall mhm. yaa nu mënal fii mënal nu fan jëm Fall mhm. yaa man kilee kële mëne fura jëm mhm. Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illallah Cheikh Ibrahima Fall

moy mang Cheikh ibrahim Fall. la ilaha illallah jant wi nan dangu wu ëllëgee borom tuba nee kérok bi seen borom wootee ci bis bobu ñu wax yoman xayam di mujjantalu bis bi. Mhm. nee kérok ban ne ana ñu aju ci borom tuba mhm. sallahu legen ngeen seen bu la yakkan sa jëm je jëy Ibrahima Fall. la ilaha illallah. moo tax bu ne moy shams sams rijaalul donc mhm. kay mën nangu. abu rijaalul leehi. baa jàppoon ko gor gor ñi ñu japp ni ñuy gor ay geño ak i moo tax ñu naan abori jaalullaahi déedéet Ababacar lu mu doon. saxaaba la saxaaba ko doon woowee. pour Siddiq. Aboubacar ni Siddiq. Siddiq suu sibqi wal faa. rafiqun nabiyun xaara an ba u. aboori jaalullaahi la. Mhm. ci góor yàlla la bokk. Mhm. Aboubacar fan la njëkkee moom lu jiitu muy doon aboori jaalullaahi te li ma lay wax ni digganteem ak mam Ibra Fall jitu nako fuf ndax deeng nga Ibra Fall nee na te loolu fi mu ne may waxe yara lolou dafa doy ciow man Ibra Fall fukki nday ak ñet ak ñaar amna ko Seydou Ndiaye mom mu jëjul ana fuk ak ben ni lan lan lan na lako dede man ko laaj ko koy delo mom ah mooy mooy. <laughs> dégg nga ci xam. Uh-huh. man ben la ci xam. muy Seydou Ndiaye bimne mu mu jëjul fuk ak ñaari li ma la bëgg a wax da ko ciy bëgg a déggee. Uh-huh. mooy li mu wax ni watt naa géejug laa ilaha illallah juróom-ñaar fukki junni at ñu dooratal seen maam Adam. allahu akbar. loolu doog naa fi ne mën naa bu ñu firee béy bi. Hmm. di nga mën a dégg li maam Ibra Fall di wax. Hmm. ndax ci saayir bu Ndiaye leen mën a wax ni moo jur Ibra Fall. waaw te moom Ibra Fall moo ni man am naa fukki ndey ñaar Seynabou Ndiaye moomu mujjee jur. kon li ma bëgg nga dégg ko mooy ajaabani rahmaanu qabla al xalqi la woon. xablal xalqi googu la wax wattu naa géejug seen borom bi ñuy wax laa ilaha illallah man Ibra Faal te boobu da nga ci dégg alastu bi rabbikum lu jiitu ñu koy wax ñu koy tël ni man naa ngi wattu géejug laa ilaha illallah kon kooku moo tax bi ma laajee man la nga ne ma kooku kuma la man la bu doon bu doon maxnaam bu saaxee dama naan la du ko nii xam ndax man la woon xamuma ko lii fii mooy lim ñu yëgal mooy lim ne moo ne ci yoon wi yoon wi yëg-yëg la mhm. fi mu ne bu doon xam-xama mhm. man du ma ñëw ndax awma ko lima yek ci serigne bi nga ma laaj ma lay wax fi ma tollu man moy serigne bi mhm. ni mu def Ibra fall mhm. tam wax ni ko bëgg ma def la ni Ibra fall jéem la top Ibra fall mom mhm. la ñuy dàkku ni ndax Ibra fall ni ni def mom mom la lo defal ku baax ndax na wax borom Tuubaa ya waxal man may ki jëf moy borom Tuubaa mo wax alquran mom mu ñëw jëf alxuraan yi da ñëw wax alquran yem ci kii jëf ndax mo ni yalla mima mom kon amoon na borom. Uh-huh. waaye dafa koo mujj répartir sa téléphone bi ko jël may ko ko ku la koy laaj. mu mujj na bàmba mi ko moom yàlla moo ko moomoon léegi bàmba mooy ki ko moom. Uh-huh. kon nun li ñu Ibra bëgg a jàngal mooy dem leen ci borom Tuubaa mooy seen borom. Uh-huh. seenu nu beneen borom borom Tuubaa képp ñun la ñuy jaam. day rëy nag ci kàddu boo ko waxee. waaye kenn ku ci nekk. xalifatullaahi fil ardi. am ak fa ngay déggee mu ngoog. kon dégg am na solo ci mbir macha allah jërëjëf bëgg bàyyi ak dégg dafa am solo. Ah. kon noonee ci liggéey bi ñuy liggéeyal ku baax yi mm-hmm. tam ne jaaral leen ma ko ci Ibra Fall ndax mooy bunt bi Ibra Fall moom i li mu wax ku baax ki waxagun ko. si. problème yaa ngi démarré de. ah problème yaa ngi démarré ah. ko wax. waxagun ko mooy lan. wax ca bokk na ci. Ah. bis am naar dafa ñëw. nekk ci biir kër borom tubaa gi ci saayir borom tubaa di déglu naar waa ngi toog di déglu bokk ci naari daymaan yi di naari gànnaar yi mhm. dégg ñuy wax borom tubaa baat wu réew yi muy baatub yàlla te dama ne baatub yàlla kun koy wax nga ko sikk sàkk da ngaa xamut yàlla mhm. da nga maa mën a misaal yàlla lay sa ka mislihi shay'un sëriñ bi ne ko abal ma ko mislihi mooy misli laa yuraa abadan duñ gis sam kem waaye ku mel ne man borom tubaa dee su ko gis daan ni keroog bi naar bi dégg ma am accès ci baat boobu bi dégg ko moom jëmmi jëmmi jëm jëmmi dënnam dafa rëcc ngir ne lan baat bi nga xamante ni dégg na ko te mosu koo dégg ci nopp ba àdduna sosoo ba suñ joon yàllaa te ji kenn képp lan ko mës a wooy kun koy lan mës a xam kun koy wooy mi borom Tuubaa lan noo tax daa jëf jëfi yàlla ba tax ñu naan ko yàlla am jëmmi yàlla daa semmi ci jëmmam dañul di moom allahu akbar bi bi naat bi defee loolu yi daa di rëcc nag génn ndax baat boobu mu dégg ndax kii ñuy wax sëñ Mbay Saar moom dañu dox borom Tuubaa yow yaay sama borom waaye la ko fa mu jaar ak borom ba tax mu ne ko yaay sama borom ku mu fa jaar nga ne ko yaay sama borom mhm. waaw mhm. ndax fii ci àdduna dong day la fiy perent mhm. am sa benn mbokkum policier mu leer na la kii képp da ci mën a génne boo fi génne di ko sant sant wëpp sant ko sa borom boo weetee doo ko sant sa borom te dama ne lay sakartun laa si dana ko walen kafartum wal a'udhu bil khadim kon nun lu meuna xew kin wara sant moy Ibra Fall ndax mo ni wonele mo ni marale ci li nar bi ba mu génnee daa dajeeg Ibra Fall ci li nga ni waxagul mako ko wax ci ben baat daa dajeeg Ibra Fall nako waaw koy yow da yow yow la don set da di ag suuf monoko ana lu xew sa xel wi nga dawe met na di adom ah, waxo na la ci ndjel ben la koo manti don ci adina adom ah, la lay wax na ci sahir magena borom tuba ci sahir la la wax ñetti at waaye kooku kenn da koo magut ndax moo fi jiitu lépp ndax ba fi nekk mag ak ndey ak baay dafay amul dégg nga Ibrahima Fall bi muy wax ci géejug laa ilaaha illa juróom ñaar fukki junni at hmm. moom dafa randu si borom Tuubaa dégg nga moom it daf ni man seen borom wuy na ma juróom ñaar fukki junni at ñu dooratal seen maam Adama bi ñuy Adama la Ibrahima Fall di wattu géejug laa ilaaha la laa kon kii daa ko kii randu si kon ñoom ñaar àndee nañ ca asal du fii mhm. bëggam gii mu bëgg borom tubaa ak ànd gii ñu ànd du woon fii mhm. même bu fii te teewul ñoom ñaar dañuy ànd mhm. ndax jalaal la ak jamaal ci saayam ñu ko mën a nettalee naar bi dañu tëll jàkkaarloog maam Sidi Fall Ibrahima Ibra Fall na ko ah doom lu xew xel wi ngay daw metti na ah doom lu xew mu ne ko nun day Fall danoo dégg loolu musta toq ci suñu nopp mu ne ko ah loolu lu ma munako fi ñi wax kër ku bax ki di borom tubaab munako ne suuf ko kenn di waxtaan ak wax jëm di taxaw taxaw nee mu daal di àgg suuf munako adom ah, lo gis lu xew munako dama faa fekk ñuy jinn sa waji naan ko yalla mom Ibra Fall de ci mag gi ak nite gi man dem na ba lire ab lettre bo xamanteni ne tuba bi ñoko ko jox te loolu duñ ko jox ku dul ku nite mhm. man lire dem na ko gis na de nga neena na bi nar bi nako ki jinn daal Ibra Fall sallahu day ñi dañu xamut kii du yalla, nar bi na waaw ko yow nak yow kep la mëna a waxtaanal mu ne ko dama bëgg nga xamne ñi di ki li ñu koy jiiñ du ko te Ibra Faal la wax li ma lay wax de daan ko ki ñi wax ni mu yalla momi mhm. ñu tuddu ba sa dënnu recc ak man mi di Ibra ak yow mi nar bi seigne touba mi ñuy tuddu sa recc mo ñuy diggal ñi dem di teru ñu bu di ci yow de ndax yalla mën nga ko jaamu ba yaru kaddoom di wax ci waxam di jëf ci jëfam yor jëmmam kay gis nag mën nay gis sa jëmm yow bëgg bàyyi mhm. waaye jëmmi yàlla ji day sey faw ci sa jëmm waaye nag du waxi kase koy maye lu dee liggéey la maanaam zahir laa la jox mhm. yàlla dañu ci dara bu ko dàq ci dara ndax koo xamante ne mi ngi ne maa ngi fépp mhm. nga bëgg koo wutal mbaxana wutal ko place bu muy toog dangay dégg ñu ne yàlla ca aras la yemoo yemoo alxuraan moo ko indi noonu la ko waxee mhm. fi mu ne ci saa yi da wax boo nee yàlla dan naa la mi ngi aras ci saison boobu saison bu rëy bi borom tubaa wax ni mhm. siis boobu yi man borom tubaa ci mbind mi mi ñuy defar abda mhm. bi taalifi ilaahiyal huda wa kullu man rama hadaahu bi hadaa mbind moom mi la wax ni jamono ngi ñëw defaral naa leen loo xamante ni képp koo xamante ni tab bi nga ci kàmbub kàmbub lëndëm boobu ba bëggatee génn lenn kep nga meuna japp set wecc la nga kan nekkoon mooy min mbind mi japp ko la ilaha illallah maa lax doon yuxallahu akbar jumlatan li nuri min salam qatiya insha allazi mahal alam yuxriju moom képp moo ñu mën a ci lëndëm la boobu moo motax ibrafa de nga batay loli loolu jëmmi mbind mi dañuy joxoñ ibrafa ndax ibrafa neena nee Bamba bari dole mom mi fekk góor yalla muy tank ci dëndam di di di séddali gaayam nee na yi ci dëndam lañ ko jëlé mom Ibra Faal. bàyyi la la mi tegtale la lay bëgg wax jëk ñu ci ara kam ka doon kam doon liggéeyal koku la kenn dul xam comme kenn du ko xam nak kiko doon liggéeyal kenn du ko xam. <laughs> pour yaa ngi demaat de. maa la comme <laughs> mom kim doon liggéeyal kenn du ko xam. amul daraja. Ah. amul kem. Oh. amul place néna wa huwa xaddiimun maa lahoo bidaaya wasu baqaa'in maa lahoo nihaaya wasu xilaafin li bariyati maha wasu xinan li nafsihi lii jamaa jamaa lii bu la soobee yàlla la bul denc yàlla góor gaa bul ko ci jëlee lu tax bul ko ci jëlee mooy kattanug yàlla gi laa bëgg nga yëg ci li ñuy bëgg a wax ndax dafa jeexal lii mu defal Ibra Fall ndax ci layam pekk déedéet am na lu ëpp loola doxal ba xam boo doxee da nga ci gis baa nga teg sa bët baa mu won la ne am na lu ëpp loola mm-hmm. boo doxee nag laa wax ci boo doxee ndax am na ci lool waxi kat kase kase kase du la ko may mm-hmm. tëdd sa kaw lal lu tax Ibra Fall am li mu am sëñ ma numbe lu tax mu am lim am ndax jaar nga fi mu jaar ndax daj nga lim daj déedéet kon Ibra Fall mii nun moom la ñu am lu tax moom la ñu am moom lañu ñu ku baax ki joxoñ mm-hmm. ndax moom mais moom daa teel a yëkkati loxoom moom musuma def lu nit man nii la def kay musuma def lu nit man musuma wax lu nit xam allah akbar denga mhm. da musa wo soxna fàjja fere yi dañoo mësa di waxtan di sante borom touba soxna fàjja bayiko fofé dem ci borom touba ne ko day mbàkke ñu ngi lay bu baax mune ndax ndax mos fi lu jar def fi lu jar sante daan ne ko Fatou Dia bu ngeen xamoon lu loo xamante ne jar na maa sant man borom Touba mooy melaw yi ma melaw ba nuur seen jëmma ji naan dama ne ngeen daan xaa loolu rek a mat a sant allahu akbar naan dama ne ngeen naan xaa tong gi may naan borom Touba ne ñu naan ci saayir ki ne woon njaareem moo waxoon lii ak lii moo waxoon lii suñ ma suñ ma numbe ak moo waxoon lii sëñ Fall loolu yi muy wax nee na bokk na ci li ko gën a yomb ci jëmbam mooy faatu. day day da la. baatu dama neem ngeen ne xaa nee na faatu ko gën yomb ci jëmbam. sëñ bi kooku noo koy jàppee nan nga koy jàppee léegi ki nga xamante ne xam na si moom aslëf bi ñu ko laajee loo xam ci moom daf ni kaay leen ma dimbali leen daan ni ku xam ci yéen guy am ko yëkkati loxo ne ko faal xam nanu guy mu joxoon ko guy woo xamante ne biir na ko bu ko junni nit wala téeméeri nit la sewoon seeni loxo mën naa bañ a daj ndax wu rëy ci saayir lii ma lay wax ni boo duggee ci àll bi di gis guy guy gu nu toll mhm. ci yaatu mhm. li ma bëgg a wax rek ci kàddu mooy yaatu li may bëgg a wax mhm. maam Ibra Fall nee te moom la ñëpp maasa xam ni wax ni Ibra Fall mi moo xam ci borom Tuubaa si def mu ne la kaay moom misaal leen ci kin naan maa xam ci moom guy gii mu ne waaw mu ne ko xam ngeen si ndax ñu ne ko ah kay Fall mun ne ko loolu yi ñuy wax ay tànk ci moom loolu mu teg ci groupe bi képp laa xam ci waa ji <laughs> kon moom ki xam le ko xam waaye moom mi kay xam ne du su ko xam léegi yow mi koy topp noonu ngay demee ba dee su xam say mbir yow ngay romb ci mbedd ñu naan diw mii moo ne bërki démb la fi woon de aha kay mhm. ku nekk am nga sa démb mhm. ndax bu leen fàtte ni démbay waral tey tey wala ëllëg mhm. te ñett yi képp fi nekk démb la woon ak tey ak ëllëg sa démb dara jagut li koy jagal mooy saw tey liggéey sa tey ba sa ëllëg ku la gis ñee la kon maam Cheikh loolu la ñu indil mooy kaay leen jàpp ci lii buum bii ma leen teg daal ni keroog bu kurus bu saawee bu leen topp peri jàpp leen ci buum bi ndax moo leen boole woon may wax tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mm-hmm. loolu la loolu la nu maam si difaal indi nun jàpp leen ci ku baax mooy dëgg-dëgg mbir mi waaye waxu ko rek yem ci da koo jëf ñu gis ndax li tax da koo jëf ñu gis keroog bi mu fi ci saayir bi fi borom subaa bàyyi ko ngay mën a dégg ñu ne leen lii mooy kërub Ibra Faal mm-hmm. kër go xam dana la Ibra Fall moko mom moom mu nangu koo mom moom Ibra Fall keroog ci sayr ba fi borom tuba baye ko la ci hmm waye lum neena na man man Ibra Fall fuma ma mës dëkk baa am borom tuba képp tax mo wut ko moom Serigne Aziz Fall waaw ah, mom Ibra Fall waaw lu ngeen gis ma am ko ba ma wut lu ko lum fi doon sa jëmm je waye jëmmi borom tuba je dala jox misalum sahir ndar gi mhm. bi borom tuba di yabal ndar ci as kamara ñom maam Ibra Fall ku mu fa maam Cheikh Anta la ne ko de sa waa nee na sama bon gi daa xajagut ak baaxam gi man Ibra Fall sama bon gi nonaa bëggee ne léegi Mbàkke baari sa dar masan ko na Bamba ndar ngay jaari ndeysaan Bamba jaari ndar ndar ba simili daaro ñu daal di koy jalax mu woy Ndakaaru mhm. soxla me yaari guddi Ndakaaru ba déglu wax jëmbat ma wax nga waaru isa sagadu saalikal ma biita wa saalikal ma biita wa saboota taariga jaati bi lar maay nafsi walaakin saba anil maay na ñëpp dem ñu nu màggal bàyyi sëriñ saaliw nu ko génne nee ji mbakke baari sanar ma sankona nar ngay jaare nu ñaa ko yóbbu foofa ci galwaab musal juróom yaari atam ci balwaam kaso fital mbaa karawaas mbaa jaase du tey Sëriñ Tuubaa di way ci naasin fii laylatul jumaa di lan ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu yanaa ko lambal Xaadim Rasuul lambu keroog daj ay ko bare ki rabbu ñu doj ko foofa dem mu des fa ak rabbu Sëriñ Tuubaa mun moroom bismillah doxalal <laughs> waaw jërëjëf sëñ Lam allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah oh. ñoo ngi siyaar bu baax. Joni ziar na la waaye tur bi naka la fay wootee. Euh, donc jumtukaayu Serigne Saliou Diakharaat. nan. jumtukaayu Serigne Saliou Diakharaat. jumtukaayu Serigne Saliou Diakharaat. waaw. am nga fa la de. alhamdulilah. jërëjëf. ñoo ngi siyaar bu baax. jërëjëf si naka waa si naka waa Diakharaat. ñu ngi sant Serigne Saliou bu baax. jërëjëf Diakharaat. xanaa xanaa xanaa. dembe cebba di kabal ne njàngum sëñ Tuubaa moom su dee yaa ngi ko moom moom moom moom sant nañ sëñ Tuubaa bu baax a baax ci fesal bii ak wane bi ñu ñu ngi ko siyaar bu baax. jërëjëf jërëjëf waa ñu xiraat sëñ ñu xiraat di remercier Baba ci appel beeg kon sëñ Saloum Thiam. Fatou Sabra. ajo. Hmm? waaw moom de. <laughs> Cheikh Ibra. Hmm? Cheikh Ibra. Cheikh Cheikh Cheikh Ibra Fall daal. <laughs> Lamp waa mu dina. moom la ñu war a topp. njëkk nañu bu njëkk nañu arraché. ndax waxoon naa la da ci njëlbeenu kàddu gi ne la. Hmm. bu ñu yemoon ci waxam. yem ci jëfam. coow du am. ndax ka war a coow. Mm-hmm. ak ka war a topp jëf. Mm-hmm. Ibra Fall lijjanti na leen. ndax ñi fi nekkoon. Mm-hmm. ñoo gën a yéeme ñiy wax tey. te Ibra kenn ku ci nekk jaar naa ci yow ruq woo xamante ni. bu ngeen toogoon. yow sa jëmm kay. yaa koy xalaat tuubal. ci mboolem loo xamante ni yaa ko doon def ngir ku baax ki. Bude ci walum def jëflante na ko ak yow bu mat sëkk bu ci walu wax waxtan na ak yow ba mat hmm ndax mag ñi nekk ñi mu nekkulon fi ci ndar hmm malik ci la hmm. bok Camara ci la hmm mag ñu bare bare bare bare bare hmm. te ñom ñepp ku ci nekk japp gim japp ibrafal. nga xamanteni ni ci sahir da ngay deg sax ibrafal di wax ni képp ko xamanteni mi ngi sama kër gi te dégg nga maam toll ci dégg néeg dama na yebal ci sa ci ci ci sa baay alaaji Maalik nga xamante ne moom ci jëmmam moom moo ñi moo moo koy rafetalal tout tànk yi mhm. ndax ñun doy loo wante woon ak ànd yi nga xamante ne àndoon nañ ko ci réew mi mhm. ci saayir mhm. mooy li ma bëgg a wax mooy Ibra Fall lijjanti na mbooleem fi nga xamante ni ku baax war na faa jaar ci yoon wi kon moom mooy solution bi bu ñu yemoon ndax jamono ji moom la ni Cheikh Mouhamadou Mountakha indil. Mhm. muy solution. solution bi nga xam ne moom la borom Touba bindoon ci Sahir ci Touba mi mat la bul faw seen ne képp koo xamante ne aju nga ci sëriñ bi te man ko waaye daan ni boo ko mënut dey na nga fexe bis bu set nga wut aw rajo wut sooboo bi muy xasida gi ku ko jàng ba mu jeex tàkk nga déglu ko yàgg sa njaboot. allahu akbar ndax dégg gi li muy def la jàng bi def. la ilaha illallah kenn gisagut jaamu yàlla boo xamante ni dégg gi lim la jëriñee ni la la ja ni la la jàng bi jëriñee loolu la ñu borom tubaa andil xamuñu ko nag lim ñu indil waaye ku ci xamoonu xaraf laa ni moom la wax ne xaraf xaraf ku ko ci xam bu ëllëgee seen borom rus na koo rekk ci sa dënn tàbbal sa wara te daan ne ko xaraf bu dul ci nekk ci sa dënn googi saa borom mën naa jëflante ak yow tàbbal la sa wara mu fa zeyni moom déedéet mooy jën mi xasida yi suñ tubaab yi ndax alxuraan boo demee ci alquran da nga fay fekk koo xamante ni ku ko mokkaloon la mm. ñu ne la bi mu faatoo saa borom wacc wacc na mboolem nekkoon ci dënnam ci xarufi alquran tàbbal sawara allahu akbar sëriñ bi ne mm. seen borom rus na ma rus goo xamante ni benn mbind sama mbind kum nekk ci sa dënn bu ëllëgee sawara seexlu la mu indil nu ko mënuñu koo wax ndax kàllaamaam jotul nu mu jaarale ko ci Ibra moom mi matale jëkk nañ waaw jekki nañ aka wuuteeg li gaa yi def nag suñu jamono ji ndax ku jóg na Ibra Fall mhm. aka baax mhm. waaye ndax xam nga na doxinu Ibra Fall mooy coow li loolu war a coow li fi ne boo gisee lu bari ñu koy teg ci deram mooy li ñuy gis ci yeneen i deri te deri bokki wunu deru Ibra Fall set wecc amul gàkk waaye yow mi koy roy te nga ne ci ngay dox ndax saw set na looloo jërë laaj. yow nga nekk ci carte boobu yaa ngi woote woo Ibra Fall gën a yées waa carte bi te sëriñ bi nee Ibra Fall de moo ko wax. borom Tuubaa boo ko ñu njëkk a fay ëllëg. mooy ndur gi murit. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf jar na la. yàlla nañ la ziar. lu tudd dafay wootee. maa ngi wootee Tamba. Baye Sila Mokhtar bàyyi lam foofu si lànkook njàngo bi sant mbay bay la sant mbay ah mbay mbay mbay waaw mbay am du mbay bëgg ceeb dama koy dégg rek de ah dama koy dégg rek Sila Mokhtar da loolu lañu ko ci seen nga ci seen nga ne waaye nag kàll ci laan bay moom waaw moom lu mu loo nekk nekk ci loolu tey ko. ndeysaan ñu ngi leen di siyaare bu wér. jërëjëf si la Mokhtar jërëjëf la. di ñaan seen bi yàlla barkeel ko. amiin yaa rabbal aalamiin amiin si la. barkeel ko ba mu matale fépp nag. ay amiin amiin si la amiin amiin. loolu waaye nekk di ko dégg. ay d'accord amiin. di dégg loolu nag sama doom joo fi ne muy làmp làmp si la. waaw waaw Baye maa ngi lay ziar. doom la. waaw ndeysaan. ñu koy dégg lool nag di ñaan yàlla moom it yàlla barke xasida yi te leeral wax bi te te gërëmul sëñ Tuubaa. amiin yaa rabbi amiin amiin lool nag. jërëjëf amiin bàyyi xel bu baax. waaw ndeysaan ndeysaan si la jërëjëf. yàlla ngeen yokk ba yëg ko. amiin amiin amiin la yow nga yàgg fi lool suñu kanam. amin yàlla ñu ko bokk. ba ba teraanga ji la yéene ñu matale ko barke borom Tuubaa Amin amin amiin incha allah. ah. nga yàgg fi lool ba teraanga ji la yéene. ah. teral la ci xasida yi ñu defal la ko barke borom amin amin amin amin amin amin Amin ñu ko amin. waaw nga fekk lépp barke borom Tuubaa. amin amin amin amin waaw di yàlla suñu waajur la yoo xam ne fi mu féete mu buñ toon wax ah. xanaan. Ah. suñu waajur suñu waajur la yoo xam ne fi yàlla rek lay bàyyal. Hmm. waaw di ñaan ci xasida yi rek soo fan gudd lool barke borom Tuuba. amiin yaa rabbal amiin ko bokk. waaw li ma li ma bëgg wax ko waaye nag yàlla xam na. Hmm. waaw yàlla xam na si soo. waaw. baax na jërëjëf si la. jërëjëf saa baay sunu baay. waaw. Mamour Sylla. waaw ma ma ba Tamba. Tamba Tamba lay wootee ndeysaan Tambacounda sa tàngaay ba jeex na mën na tàng jër ci ngoon la ma woo ma ni ko kat dañ maa wuti benn télé mag benn xarit mu ni ma lu mu xat-xat du ma tëdd ci lal te wóotewuma allahu akbar waaw lii day wane ni ñun kenn bëggunu sëñ Tuubaa Seex Ibra moom lañu toppee muy ñaan nag borom Tuubaa mi nga xam ne mooy maye suñuy bët ak xolam lépp na ko wàññi rek ban ne ci borom Tuubaa rek ban ko génn incha allah rabbi waaw ndax lépp mooma. yàlla na yàlla def kenn du fi dara lépp mooma. yàlla na yàlla def ah, si biir bisimilah doo baatal. waaw ay régime si. ah ok nag lépp rek du kenn lu ne ku ne. waaw ah. lu ne nga ca. c' sëñ bisimilah yàggal ci sa chèvre gi. moom de kon koy wàccee rek. bëgg a wàccee mhm. te mooy maam Ibra Faal moom mhm. Mhm. bu fa toogoon ba ren di déwén nit maam Ibra rek la ñuy wax jël tak <laughs> bàyyi laa la faal ndax ndax ku jeex moom ni nga waxee seen sànq rek ah, lu nay ku ne ku ne nga ca ku ne nga ca kon nag mu mel ni sant gi nii sant rek ci biir ñaanuk suñu làmp googu yi nga xamante ni borom Tuubaa daa woolu Ibra Faal ba mu ñëw na ko kaay mhm. muy li ñuy bëgg a wax muy wàcce kaay ma mhm. wàcce la Ibra Faal daal na ko Ibra Faal mhm. mu ne ko Mbàkke mu ne ko lii aw lan la joxoñ ko muy aw teen mu ne ko lu cay nekk mu ne ko baaxoo na ndox de mu ne ko duusu ndox wu ci nekk mën naa la koo defal ngërëm Ibra Faal nga dem tabax Allahu ko Mbàkke xanaa xamul ni teen day dee <laughs> te yow yi li fi yow du jeex mukk ba àddunay tukki allahu akbar daan na ko Ibra Faal kaay wàññil sa mbari bët yi nga da teg ko ci àdduna fu la soob loo bëgg ma defal la ko Ibra Faal nga bàyyi da nga bàyyi ma bàyyi Ibra Faal na ko Mbàkke mbari bët yi ëlbati ko mu gis ba mu gis ku dul yow ah, ah. allahu akbar mm. mooy li si ñaan di doon ñaan léegi suñu mbari bët yii nun seeliku mm-hmm. ak ku mel ni mun mm-hmm. ku mel ni nun mm-hmm. ci bëgg gi nu bëgg borom tubaa nanu ëlbatil suñuy mbari bët ba bu nu gis ku dul borom tubaa ndax jàng nu lu dul lu may am mbindam sëñ Fallou Mbacke da doon doxantu da doon doxantu fii ci jumaa ji ci li tax ñu war a góorgóorlu ci lii nu nekk fekk ab mbokkum taalibe bu yor meneenum mbind bu bokkut ak mbindum sëriñ bi suñ fal daf koo tàcc na ko ay waaye ndaw ñee naa la doom <laughs> alu tax mu ne ko yow mi jeexal li borom Tuubaa bind ba jël ba yër bi nañ bind dama laa ñee <laughs> te nun li sëriñ bi bind liñ ci xam sept tonnes sept tonnes c'est ça mm-hmm. lan ñu wax ci saa yi te tubaab bee ko karma sëriñ bi nee na li ci jéeri ji mm-hmm. bokk ci li ci géej gi bokk ci li mu gas bokk ci ma wax la benn xista su gàtt ci diggante lim gas suul mm. sëriñ bi woolu na ñeent ponkol ñu am lef mooy ñu am doole ci jamono jii mm. mu fanaan jox leen xasida yooyu ñu fanaane ko lakk ba bët set mm. kenn ci nekk ci ñoom mën na la ëf ñu fanaanee ëf ba bët set ñeenti lef laal ñeent ponkar yu am lef allah akbar nga xam ne xasida yooyu nun nii teguñu ci bët ku mel ni nun tegu ci bët lim na damil urufi anil arshil azim xaraf yi nga xamante ne ñooy taaral arsh hmm. sëriñ bi ñun teguñu ko bët ñun ci saayir wala boog sa classe gi dem xëy na ñoom gis nañ ko waaye ñun demagul gisaguñ ko <laughs> yi nga xamante ni ñoom la malaaka yi jàng te sëriñ bi wax ni buñ ko indi mukk te saa taxawut te bu saa taxawee buñ ko indi ñoom dañ koy mokkal ñun tegaguñ ko bët mbind mi laa wax de mbindum suñ tubaab bi sept tonnes cinq cent la ñu déclaré jàngaguñ fi lu mat une tonne keroog laa ne ba sëriñ bi dee sëriñ bi ci saayir ba suñ joon yàllaa tey jii ku mën a indi xasida ba mat une tonne dama ko indil ah ah boo fi indi di nga indi morom ma te sept tonnes cinq cent la ñu déclaré te Sëñ Abdou Lahat nee na ñoo ñuy wax sayid allahu dañu koo wax ngir natt ko ndax tubaab ci natt lay dox mhm. daan ni man Abdou Lahat kataballahu tabaraka wa taala gis naa ci loo xamante ëpp na sept tonnes cinq cent waxuma la inna allaha malaikatuhu bi mu tëggee am fatihul bisir waxuma la jalibatul marahib waxuma la nur dairin kataban lahu tabaarak wa taala kep la wax seigne blat neena lima na ci teg ba ëpp na sept tonnes cinq cent kataban laahu taxawal jëmmi kataban gis nan len ki bind bind mi wax na ni wax motax ñu ne kataban lahu yoy na bu ko ba ndax sëñ Ablaat neena amna ci ñun bu ci tego seen bët dootuñu julli dootuñu war ndax katafalla allahu akbar <laughs> ah kon sant nañ bu baax di rafetluwaat bu baax manam kaddu gi jërëjëf tuubal lañ koy def sëriñ bi jërëjëf mënuñu yëkëti hmm ndax ko xamanteni ni ba muy jog kaw sa mam mu njëkk mu amagut mhm. boko bëgge yëkëti indi nga ciow <laughs> waye dañuy wax lim bëgg nun nu doxé moy mhm. tok di waxtane mhm. ndax nee na lii ñu def mm. moo gënal yàlla ci kaw suuf si mm-hmm. moo gënal yenent bi ci kaw suuf si mm-hmm. ndax lépp loo wax sëriñ bi mm. boo dàqee damir bi day jëm ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax koo xamante ni dafa jël jëmmam daat ne xaaj naa bu doon at yi fukk ak ñaar la juróom benn yi ci tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la jëm yeneen juróom benn yi ma di ko way di ko kañ di ko way fukki weer ak ñaar bis bu set ak lamay defal ku bax ki kon nak mam irafal no noo ngi tubal serigne bu bax ci kaddi kon bu ko defé bismillah la ilaha illallah. d'accord. la ilaha illallah. la ilaha. yu ngi seetaan. duur yëpp. waaw di siyaare ñi nga xam ne. Mhm. boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi woote. Mhm. ak ñi am yéene woote te dugguñ. Mhm. di siyaare waa marché bi ma nekkal nga xam ne fi liggéey. muy quartier Baol. boo limee rek ngaa jóg. di waa Souka bi boobu kenn. di ñaanal ñëpp jàmm. di profité ci di lancé waat message. liggéey bi ñu nekk di ci liggéey Sëñ Tuubaa. xëy na néew nañ ci doole ci saay Mhm. waaye sëñ Tuubaa moom moom néew ci doole. Mhm. comme ni ma ko waxee woon rek yàlla wala nga soxla na am programme. Mhm. foo mën a nekk. boo nu wooyee ci 77 624. 12 54. dina la jàngal ngir sëñ Tuubaa. waaw yaa xam waxaat numéro waxaat ko 77. 77 624. 624. 12. 12. 54 54 mosu bu mu jokkoon. waaw moo soxla ci may woo. 524 12 54. waaw bu la neexee tamit nga def 78. 78. 358. 358. 75. 75. 89. 89. waaw képp ku ci am programme. Uh-huh. boo nu wooyee nan la jàngal ngir Sëñ Tuubaa. allahu akbar. dina la laaj dara waaye loo am yéene jox na ko. ñu uh-huh. jël ko ngir Sëñ Tuubaa. allahu akbar. waaw di di di siyaare ñëpp. Uh-huh. ndax soppe yi bu ñu ko fan. billaahi dafa jóge. waaye noo ngi ñaanal ñëpp jàmm. te émission bi amoon ci yéen ju ëpp lii. xam nga rek waaye xam naa. nooy kër yi def lii bàyyi ba ma tàng rek. <laughs> Mudah daal di ñaan waaye bëgguma woon sax ñaan di hmm, sama xarit hmm. hmm. sama lépp moom fu jëm nooy ànd moom saa ma gëstoo gis ko rek damay gën a damay gën borom ko akbar may ngeen ñaanal ko allah rabbi yow di la siyaar bu ndax yow dag noo jàpp saa su ñuy déggante yow li nga yéen ci noonu xam nañ ko ñu ñaan ci barke ki nga yaakaar nga xam suñu borom fajjal sa aajo defal la xéwal émission bi ma ngi ñaan yalla nga dem ba am ño xamne dañ koy dañ la koy fayal amiin ñu bokk ay télé yaat bak barke touba Tuubaa ñu bokk sax si li nga bëgg suñu jëmm ñun xam nañ ko hmm waye nak nga ko mat tax mhm. ñun lu way bëggal du ñun Sëriñ touba mo lay fay hmm Sëriñ touba dañ lay kalaamel mu defal ci lepp <laughs> waaw ku lim rek da ngay jëf ci baax ba yalla ñëpp di saasi espal baxna espal law diriñ Aziz Fall bokk yàlla comme ni ma ko mhm. waxee woon rek moo waxaat du bari wax hmm ndax nit bu yëkkati alalam dina ko jox hmm te defaloo ko dara mhm. war nga koo sant mhm. ndax tane na ko ñi ko defut billaahi lazi ak si Ibrahima Sóori Silla mhm. xel comme ji passé bi ma ko waxee daa yëkkati addu ju bëri jox ma allahu akbar waaw nga xam ne rajo yi doon rajo si saa yu mën na ma seede ci laa ko di leen ñaanal suñu borom yokku leen waaw ndax sëñ Saliou Mbacke Fall mhm. ak ñëpp rek ñaanal ñëpp jàmm barkab xasaay yi jërë jëf kon Baye Saliou tàggoo tàggoo gudul tàggoo mhm. noo ngi lay santaat bu baax jërëjëf bëgg Baye jërëjëf feeñal mbégte mhm. ak nammeel ak bëggeel nit ku nekk war na koy def ndax ñaar yi képp a fi nekk. Mm-hmm. da ngay bëgg lu baax baa nga bëgg lu bon rek. <laughs> dëgg la ah, da ngay nekk ci yoon wu jub bi baa nga nekk ci yoon wu dëng rek. kese te bëgg bàyyi moom dee su ko seetal kenn moom koo xam ne ci ci lu dëng la nekk. <laughs> ndax bàyyi gisuñu ko woon ci lu dëng. <laughs> kon ñoo ngi santaat bu baax. Uh-huh. di rafetluwaat bu baax émission bi mhm. Mhm. di ñaan borom Tuubaa yàlla na ko gën a téye amiin yaa rabbal aalamiin ko kàttanal amiin yaa rabbal aalamiin may may ñu ay matériel yoo xamante ni juncukaay yi nga xamante ne di nga ko ci mën a liggéeyal mu gën a yaatu amiin yaa rabbal aalamiin ndax kat bu doon nan daan baaxe di déggee ci ni ko sañ a wax mhm. dan naan mbir mi dañ koy yemale waaye ndekete yow yaatal nga jërëjëf waaw moom mbir bi moom amatul yow mu waay. jërëjëf moom boo yàlla boo yàggee dox rek. Mhm. yàgg gis. Mhm. kon yàlla na borom Tuubaa àggalil la loola. amiin ni mu ko bëggee. amiin nun nag dugg nañ ci biir cantuk Sëñ Lamp. Mhm. fi mu jaarale lépp rek. xanaa di sant koo xam ne mënu ma koo ñàkk bu ñu tudd. muy saa way jur. muy soxna Arame Guèye. waaw moom nag mënu maa wax ci moom ndax daa sonn ci man daal. <laughs> ah di ñaan soxna si soo xamante ne moom lañ fa bàyyeet mm-hmm. ñuy liggéey ngir borom Tuubaa mm-hmm. saa borom lu mu fa eh, am rek yàlla na ko eh, borom Tuubaa teg loxo amiin yaa rabbal ci njaboot bu barkeel amiin yaa rabbal ñaanal sëñ naam bi soxna maam Bousso ak soxna Ndey Biige mm-hmm. mel ni damaa bëri soxna bu ma dee lim fii rek fi mu kaw fi ma sol <laughs> uh-huh. moo ko def addi sëñ Tuubaa allahu akbar ni ma émission booy dem maa lay solo <laughs> te xam nga ñaar ko xool xamni ne macha allah. allah li ma tamit moko moko def ni mo def islam yalla dawal na képp ku bëgg. Mhm. yéer bu laasaay bu jot. Mhm. boo ko contacté moom dina la ko defal. wax wax numéro. numéro 78 la. 78 waaw. 96. waaw 34 53. 34 53. ko ci fu mu ne. Touba fa lay fa lay fa la place yow sax bëgg mu te foo ko solee ñun daf la ñëwal lii incha allah rabbi ma bëgg nag ñëpp ñaanal ko ndax yëre bi ma sol maanaam mu dalaa ñëwal ñëwal jeex <laughs> yow nag bëgg naa seetaan incha allah rabbi incha allah yàlla dogal na li ñuy ñëw maa sàllate te mhm. mhm. mhm. boo ko solee foo foo romb ñun la ku ñëw lii macha allah may may képp kuy seetaan di sama soppi nag ma fexe woo ma booy laa moom mu lay ñëwal ma sol ko rek laax saa yi rafet macha allah. yàlla yàlla jàmm yàq. amiin yaa day dem ba marché bi jël bu seer ñëw ko ni ma andi Sëñ Tuubaa. allahu akbar ba loolu yombul. Mhm. waaw may ñaan nag ñëpp ñaanal ko mu gudd fan. incha li mu bëgg liggéey Sëñ Tuubaa ci mission bi nu ànd ko barki xasida yi. incha allah kon de matale na ko rek. incha allah a guddal rek daa mel Euh, boobu ngi egg na ca euh, jeexatal bi <laughs> kon daal sant nañu bu baax jërëjëf ah, ñoo ngi ñaanaat bu baax a baax a baax baax borom Tuubaa nañu gën a téyel suñu wayjur yu ñu defee wala boog suñu wayjur yi ñu fi dese na leen gën a kàtt nañ leen jërëjëf Thiam ah, te lépp doon fas a liggéeyal sëriñ bi rek lu borom Tuubaa naree fay noonu mm-hmm. jël nañ lépp na ko jaarale ci suñu wayjur yi waaw ah, ndax ñoom xam nga seq toog ñunu pay mhm. waaye lii ñuy dagaan ci xol lañ ko tibbee ndax ñoo wax lu dul am pay mhm. <laughs> waaye borom Tuubaa sequt ak benn taal bi pay ndax lim la defar mënu ko koo fay kon noo ngi bu baax a baax a baax baax di siyaar njaboot gi yëpp rek mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne jërëjëf Baye si la di remercier lu baax baax seen woyofal bi ma woyofal ak jàpp ne mu nga jàpp ne émission même sama yàggul ah, jeudi laa la woo ah, démb laa la woo jeudi tey la teel ajuma pour maanaam bis bis toog moo ci dox nga woy fa ma ko yombal la ma ko tamit di ñaan yàlla yombal la sa lépp barke yonent bi sa sallam bàyyi Saliou Thiam tamit ci yombal ak yow tamit tamit yàlla yàlla taxawu leen barke seen i baat soxna Ndeye Diop moo boole yow soxna Ndeye Diop maa ngi koy ziar di ko ñaanal suñu doon defal ko gudd fan ak wér amiin yaa rabbal aalamiin Tuubaa ndax moom daa ci mën yéene mm-hmm. moom moo koy seen suba moom tamit sant ak gërëm ndax garab ci baxé té ren ga la moom sama reen mo sama reen mook paas sen ñu samay reen ab garab rek la ñu samay reen di ñeen di rum so baax tamit suñu dina gërëm tamit serigne Aziz Fall Sokabek waa Touba Tawfiq Ibrahim Sène Sokabek ter son aissatu salihu Salam son aissatu salihu Salam di ko rëm si bax baax yaay boy di sering bax bax ci barket serigne serigne salihu mbake serigne Serigne Salif Thiam mi tamit si raba fa du nuyu baax baax Serigne Abdou Sarr Touba Sokabe ak xiraat di nuyu baax baax sunu baay Mamour Sylla ca Tambacounda ba Mamour di la baax di la jaara di remercier baax te ne yomb ne ku fa di remercier baax baax di gërëm baax waa régie bi Ibrahima ministre technique bi Arona DJ Sadam DJ ne télé bi daal di mu seetaan baax baax Ibrahima Sène téyër ñu naan Fatim Fatim borom supakanji bu neex bi Moustapha Sène mati job, bay gaari job, du ni bax grand pap gay ni babañ saka bi ñep nan kat aljuma jamu salam benen émission guddi nabi sallallahu alayhi wasallam ak benen spécial ak benen invité encore té jëri ngeen def Yeah!